Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ngir mu jottali nu ko kilifa yi fi nekk yépp njëkkante rekk ak waxtu wi xanaa di sant Serigne Hamidou mbakke mi nga xamante ni yàlla dogal mu soppal ma boppam ba 2019 mu woo ci màggalu maam Cheikh Anta gi ñu doon def Paris ca France ngir ma def waxtaan wi téere bi itam lu jiitu muy ñëw la ma ne woon maa ngi bis bu ñuy def dédicace bi Ndakaaru nga teew fa sang bi. jërëjëf bàyyi nga doguma la. Mhm. mais dafa bokk ci histoire Maam Cheikh Anta étape bu am solo boo xamante ne bu bu bu bu tànn bu baax a ma mhm. yëddu wala quest sama doom ji daal jaaxal na. ma doon eh, ci lu rek Maam Cheikh defe naa soxna si wax na ko ci présentation bi professeur euh, sëñ Mbamba Ndiaye maa ngi lay nuyu jële la ziyaara da nga wax lu am solo bu njëkk dañ ne woon murid yi jànguñu amuñu accès ci archives yi di jaar ci suñu kaw ndax booba noo ci liggéey ak jaamu yàlla waaye loolu changé na euh, sang bi téere bi nga génn ci maam Cheikh soxna si wax na ko sëriñ bi nee na xaw ma lu may toppe moom it xamul woon lu may toppee sang bi wax na ni sëriñ bi jox na ko manteau ca Lambaréné ca Gabon waaye maam Cheikh Anta en 1883 bi sëñ Mor Anta Sali wàccee ab liggéey sëriñ Touba ànd ak borom Darou Mouhty dem ci maam Askamara ca Ndar ngir yeesal wirdu xaadir yàgg ba mu fa yàgg ci gàttal rek junneem ba mu yoroon ba mu demee jox ko ko daf ko jox kurusu Cheikh Abdul Xaadir Jilaani malaanum Cheikh Abdoul Khadir Jilaani jàkku Cheikh Abdoul Khadir Jilaani ak derub Cheikh Abdoul Khadir Jilaani bi Serigne Touba borom Daaru Muuti dellu see Mbàkke Kayor Serigne Dame Abdourahmane Lo moom la Serigne bi dog loo malaanum Cheikh Abdoul Khadir Jilaani moomee turki ak tubéy sëñ Moussa Ka nee na ba ko sëñ Dame Abdourahmane di ñëw pusa bu mu jàmm aaye alquran lay jàng doog a jàmmat beneen pusa ba mu ko ñawalee sëriñ ba la ca desoon sëriñ Moussa Ka nee na la ca desoon mu jox ko maam Cheikh Anta ni ko nga barkeeloo ko yar bi bis booy dajeeg tubaab yi yóbbuloo ko ba Cheikh di dem Ségou mu far lamboo te booba sëriñ bi gisoon na ni maam Cheikh dana daje ak noon yi mu aar ko ca malade moomee eh, li may tënk nag ci ségu ji laa koy tënk ndax maam Cheikh Anta yóbbu nañu ko ségu waaye bariwaat na ko boo ko nee lu taxoon ñu yóbbu ko ségu du wax la nga xamante ni bii moo ko waral sang bi yaa njëkk a bind ab téere ci maam Cheikh waaye jàpp naa ni maay kiy bind ñaareelu téere bi te lépp ci demuk ségu gi laa koy ak accéder ndax suñu borom jox nañu plus de cent quarante dossiers documents yoo xamante ni ça concerne l'exil de Mame Cheikh ci Ségou moom nag sëriñ Touba moo ko ni woon yaay yeggale li des ci nattu bi wax ngeen bokk gi mu bokk ak Serigne bi Mame Cheikh Anta rekk Serigne Touba la waaye nijaayi Serigne Touba la ndax soxna Anta Ndiaye Mbàkke way juram way juram góor ak way juru soxna astawaalo ñoo bokk maam maram kon euh, soxna Anta Ndiaye waajuru soxna jaara la kon maam Cheikh Anta nijaay yi Serigne Touba ci saayir waaye loolu lépp xoolu ko da koo jënde ak taalibi Serigne bi dafa am ñaari date yoo xamante ni dafa marqué yoonu Mouride le 10 août 1895 dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci safar waaye le septembre 1895 un samedi ci la ñu embarqué ci waaxu Moussa Siri wala pooru Ndakaaru li tax sëñ Moussa Ka naan ko waaxu Moussa Siri ndax pooru ndakaar boobu euh, compagnie messagerie maritime de Marseille ñoo doon gérer port bi moo tax ñu bari danañu jàng waaxu Moussa Siri te xamul lu mu ci jublu messagerie maritime de Marseille la ci jublu bis boobu nag. di bàyyi kook sëriñ Touba ndakaaru jëm Gabon dafa am bis boo xamante ni bii moo ko ñaareel te mooy bàyyi kook maam Cheikh Anta Mbakke ndar ngir dem Ségou jëmm ju gëm yàlla jooju nga xamante ni ñoom tubaab bi ñoo bind wax ni décision bi bi ñu ko jëlee ngir di ko génne Sénégal seen yéene fukki at ba ñu ko dugalee ci ab noppam ni ko fukki at dañ lay yóbbu la mu wax moom maam Cheikh Anta mooy inna lillah wa inna ilayhi rajiun loolu waxuma ko tubaab yi ñoo ko bind faalewuma li ngeen di def ndax ci yàlla la ñu jógee ci yàlla la ñuy dellu ab document ngi nii bu daw yaram adjudant Mbodj mi nga xamante ni bii moo doon commandant moo commandé woon section gendarmerie moom moo jële fi Maam Cheikh ba yóbbu ko Ségou document bi mu ngi ci rendre compte mu ngi wax ni ngir jëfe ndigal li nga xamante ni moo dëppoo ak ndigal yi nu jële ci monsieur l'administrateur des affaires politiques te loolu muy ay euh, mesures yoo xamante ni mi ngi jëm ci El Hadji Cheikh Anta Mbacké en résidence obligatoire ci Ségou mu ni arrêté bi nga xamante ni mooy arrêté 23 31 astafurlah vingt 21 ci lël bii di fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer le 13 octobre 1930 lañu ñu jël décision bi wax ni dañu yóbbu maam Cheikh Anta Ségou ngir fukki at waaye wallahi defu ko fa ñeenti at rek la fa def mu ni nag ci daat boobu fukki waxtu ci suba lañu déparé ndar ci saxaar ak sëriñ bu mag boobu le grand marabout maam Cheikh Anta mu ni nag bi nga xamante ni bàyyikoo nañu ndar le 30 octobre la ñu egg Ségou nga xam ni kon Serigne Touba bi muy embarqué le vingt 21 euh, septembre daanaka fukki fan ak benn wala fukki fan ak ñaar le 2 octobre 1895 le Serigne bu mag bi egg libre Libreville waaye maam maam Cheikh Anta. moom mi ngi bàyyi ko ndar ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre 1930 sept heures ci suba nee na noo ngi egg si Bamako le 30 octobre 1930 10 heures ci suba nga xamante ni ñaar fukki fan tukki bi mat na ko ci biir saxaar bi mu ni bi nu eggsee Bamako la ñu daal di jébbal sëriñ bu mag boobu di maam Cheikh Anta l'administrateur de Bamako mu fanaan ci suba sa sept ci suba la ko jël dugalaat ko saxaar mu jëm Koulikoro ngir dem fa nga xamante ni bii mooy sëgu mu ni nag El Hadji Cheikh Anta Mbacké bi muy dem fukki nit la àndal dix personnes ñoom la maam Cheikh Anta àndal bi muy dem mu ne ci fukki nit yooyu itam ak ñaari dendandoom ñaari soxna yi maam Cheikh Anta mbokkoon nañ ci tukki bi mu ne ñoom maam Cheikh Anta moo leen fayal ci fray boppam première classe lañu ñu voyagé ci saxaar gi mu ni njëkk des moom fukki nit ña ci troisième classe lañu ñu voyagé mu ne nag dañoo waajaloon ay service d'ordre ngir doon fàggu ay yëngu ci gaar yi nga xamante ni bii li ko dara ndar ba ba ñuy génn frontière u Sénégal ñu ngi doon tiit murit yi yëngu ndax rakki Sëriñ Tuubaa jooju ñu jël ni dañu koy génne mu ni nag gaar yi nga xamante ni bii jaar nañ fa yépp ak daal moo fa am ndax service d'ordre mu nga foon ngir doon aar bañ ay yëngu-yëngu mu bañ a am mu ni nag waaye bi ñu egsee gaarub njaareem fekk nañ fa ci mbooloo yoo xamante ni bari nañ lool te boo leen xoolee da ngay gis ci seeni kanam ak ci seeni xol naqar wi nga xamante ni bii am nañu ko ndax sang bi ñu jël di ko génne Sénégal di ko yóbbu Ségou mu ni waaye nag avec dignité lañu ko defee dañoo taxaw ci gaar bi alt bi nga xamante ni saxaar bi def na ko fa waxtu yam fa waroon na def moom la fa def nag daal di fay dépare ci gaaru Jurbel ngir dëkkmal fi nga xamante ni bii mooy Euh, ko mu ni waaye bi nga xamante ni saxaar gi li mag ñi daan wax liit sifle na ngir départ ngir génn gaarub njaareem jël yi ak jërëjëf Baye xam naa rek yëgal la waaye rek sëñ Fall waxoon na ne pour ay yi maa ngi jégalu bu baax a baax yemale ko foofu waaye du doon bis bu tiis bis bu métti kon maa ngi jégalu bu baax a baax li nu ci yor ci ay document du ñàkk danañu am jataay boo xamante ni incha rabbi ñu ci indi lépp ndax taalibe yi ngeen fi lim laissez-passer yi ñu doon wut ngir dem Ségou El Hadj Serigne Tako ñu xañ ko ko ndax dafa àndoon ak ab ab euh, un Gambien ñu ni waa ji ab fippukat la Serigne Modou Mamoun euh, ak ñoom ñëpp euh, jafe-jafe yi ñu leen doon indil ngir bañ ñu dem ba ci.